Sunugal 24 point net dal leen ak jàmm ci xibaar yi ci Sunugal 24 léegi léegi li gën a fës bokk na ci li gën a fës ci xibaar yi Sénégal daal dinay am lu toll nag ci fukk fukk cas ak juróom ñett euh, yu nekk réanimation fanweer ak euh, benn nit euh, yi nga xam ne daal na leen testé positif lu ñeel wàllub coronavirus ba tey ab xibaar bu neex ci Kouthia daal nay wér ba ñu wacc ko mu ñibbi kërama wax ci lu ñeel wàllub njàng mu kawe mi Cheikh Omar Anne daal dinay dàkk année blanche ci wàllub njàng mu kawe mi Euh, ñu wax euh, ba tey euh, ci Serigne Modou Kara mi nga xam ne nag dina taxawal ab gouvernement takkandeer leeral yi ci biir xibaar yi lay doon ñu wax ci mouvement MFDC bi nga xam ne nag daal dinañuy am beneen chef d'état major bu yees dinañ ci dikkaat ci ni mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi ab scandale bu mag daal dinañ koy nemmeeku ca l'hôpital bu pikin ñaari infirmière lañu ñu daal di tuumaal ne dañoo sàcc euh, xaalis euh, benn patient bi nga xam ne dafa ñàkk bakkanam ca Thiès waa ji nga xam ne nag euh, dafa sotti way juróom bu góor essence ba noppi daal di koy taal daal di nay dikkaat ci ana moo waral mu def ñaawteef bi nu mel mbokk yi bu ngeen taaxirloo tuuti yaatal ak faram gi. Sénégal 24. salaamaaleykum ah, dal leen ak jàmm ci yaatal ak ah, faram-fàccee xibaar yi nañ leen ko junjee woon ca bopp ba ah, jëwriñ bi ñu dénk wàllub wirgu yaram bi daal di nay fësal tey fanweeri nit ak benn yu yees yi nga xam ne daal di nañ leen testé positif lu toll nag ci fukki nit ak juróom-ñett nekk ca réanimation niki tey jii lañ ko daal di fësal. kaa yu yees yooyu nag euh, bokk na ci ñoom ñaar fukk kaa euh, yooyu nag euh, bokk na ci ñoom ñaar ak juróom-ñett yi nga xam ne ay cas contact lañu ñett yi nekk cas communautaire kenn ñu daal di koy nemmeeku ca Castor ñaari nekk ca Thiès waaye nag limu ñi nga xam ne nag ñoom ñoo tane ba daal di ñibbi seen kër toll nañu ci juróom fukk kon nag ba mbas mi tàmbalee ba néga ni Euh, Sénégal daal dinay am nag euh, lu toll ci cent 3161 cas positif lu toll nag euh, ci 1565 ñoom ñoo daal di wér fanweer ak juróom benn nit daal di ciy ñàkk seen bakkan kenn ñu daal di koy delloo ca réew ma mu jóge woon 1559 patients jamono ji ñoom ñoo nekk ci lalu l'hôpital yi ñu leen di sayto ab euh, nouvelle bu neex ci Kouthia moom nag euh, daal dinay euh, tane ba ñibbi këram Samba Sine alias Kouthia moom nag jamono ji daal nañ koy testé négatif gannaaw nag bi mu amee woon feebar bi di coronavirus ñu dalaloon ko nag ca l'hôpital fan mu nekkoon nag ca réanimation ay fan rek ngi nii Euh, moom daal di nay euh, tane jamono ji ba ñibbi këram euh, moom comédien bi di Kouthia gannaaw ay témoignages yi nga xam ne jot nañ ko ci ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllub faj bi Kouthia nag doon reetaanloo malaat yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy fajkat yi ndax ay anecdote maanaam ay histoire yu neex rek la doon raconté rawatina nag ñeel ay way juram ca Daara Jolof moom euh, Kouthia nag jamono ji ñi nga xam ne nag ñoom ñooy euh, fajkat yi am nañu mbégte lool ni mbégte bañ daan am ci patient bu wér ba tax na rek ne Kouthia ñibbi na ñu koy euh, ñaanal rek mu gaaw dellu waat ca la nga xam ne moom mooy liggéeyam di bégal askan wi comme nam ko daan defee ñu wax ci njàng mu kawe mi ak Cheikh Omar Anne mi nga xam ne nag dàkk na année blanche moom jëwriñ bi nga xam ne nag moom lañu dénk wàllub euh, njàng mu kawe mi niki tey jii ca ba muy euh, janook euh, taskatu xabaar yi ca ministère bu ñu dénk wàllub wér yaram bi moom Cheikh Omar Anne nag daal di nay fësal ay matuwaay yi nga xam ne danañ ko jël ngir nag ñu mën a waat tàmbaliwaat njàng kawe mi ci septembre jàpp euh, octobre 2020 euh, moom jëwriñ bi sax euh, daal dinay dalal xel yi ne année blanche moom ren ji kenn xalaatu ko sax ñu daal di koy nemmeeku ci enfi yi ba tax na rek ne matuwaay yi war dinañ ko jël waaye nag jamono ji mënaguñoo wax ndongo yi delluwaat ci enfi fileek euh, jëluñu matuwaay yi war euh, ngir sàmm kaaraange ñi nga xam ne ñoom ñooy ndongo yi waaye itamit euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngalekat yi Serigne euh, Modou Kara dana taxawal ab euh, gouvernement takkandeer euh, sunu sukkandikoo nag ci communiqué bi nga xam ne général Kara daal na koy génnee ab gouvernement takkandeer la ko daal di dippee ngir daal di lancé waat ay yëngu-yëngoom ci parti de la vérité moom Serigne Modou Kara moom moo ko daal di fësal gouvernement takkandeer boobu sax dana am lu toll ci ñaar fukki nit ak ñaari personnalité yi nga xam ne dinañ nañu incarné ay rôle yu mag ñeel wàllub euh, dëgg euh, jubal leeral yaatal ak euh, jéggal ca namu mu koy waxee ci slogan bu parteem kon nag gouvernement takkandeer boobu fileek ay fan rek di ngeen gis ñu daal di koy taxawal ñu wax ci leneen mouvement MFDC daal nañuy am état major euh, bu yees euh, sunu sukkandikoo euh, ci nag xabaar yi nga xam ne daal nañ koy jot section Balantacounda bu mouvement MFDC bu Casamance ñoom nag daal nañuy amal ay coppite ba tax na nag am nañu état major bu yees quotidien sax moom moo daal di fësal xibaar bi nu mel Ibrahima Compas Diatta moom nag nekkatul foofee daal nañ koy dàq. Adama Sané moom moo ko dal di remplacer kon nag euh, chef d'état-major bu mouvement MFDC euh, ca diwaan boobu nga xam ne moom mooy euh, Balantacounda daal di nañ koy changer ba tax na nag jamono ji am nañu chef d'état-major moom nag lañ koy toppee rek moom mooy dafa daal di jege lool ki nga xam ne moom mooy Robert Sagna ba tax na rek ñu daal di koy wàccee teg fa keneen. leneen ñu wax ci scandale bu mag bi nga xam ne daal nañ koy euh, nemmeeku ca euh, hôpital euh, pikin ñaari fajkat wala sax ñaari infirmière ñoom la ñuy daal di tuumaal ne dañoo sàcc xaalisu benn malaat bi nga xam ne dafa ñàkk bakkanam Les Échos moom moo daal di fësal xibaar bi ñaari infirmière yooyu nag nekk service ca l'hôpital bu pikin ñoom nag sàcc lañ leen daal di tuumaal lu toll nag ci cinquante mille ci suñuy euh, koppar moom la ñu daal di sàcc ci benn euh, patient bi nga xam ne nag moom euh, dafa amoon diabète ba mujjee ñàkk bakkanam foofee ca hôpital ba ndax ci état grave la daal di nekkoon sunu sukkandikoo nag ci xibaar yi nga xam ne jot nañ ko ki nga xam ne nag moom mooy veuve bi maanaam ki nekkoon soxna ci ki nga xam ne dafa ñàkk bakkanam moom moo daal di constaté xaalis boobu nga xam ne daal di koy sàcc ci borom këram ndax euh, suñu sukkandikoo ci ay kàddoom euh, xaalis boobu boobule mu ngi woon euh, ci boroom këram laata muy ñàkk bakkanam ca gannaaw ba mu ñàkkee bakkanam rek la ñëw di xool ci ay bagage am gisu ci koppar bi mu daal di dem nag ci majoru hôpital bi ngir daal di boole foofu infirmière yi nga xam ne ñoom ñoo jege woon malade bi laata muy ñàkk bakkanam ñoom infirmière yi nag daal nañuy weddi ba tëdd ci suuf ne ñoom ñoo jël deux cent cinquante mille yooyu waaye nag ab euh, plainte daal di nañ koy euh, déposé euh, ca police ba tax na rek woo nañu ñaari infirmières yooyu ngir déglu leen waaye nag ba tey dañuy dañoo weddi ne ñoom ñoo jël xaalis bi ñu dem ca Thiès foofee nga xam ne nag ab ñaawteef moom moo fa am muy doom bi nga xam ne nag dafa taal juróom bu góor moom Cheikh Diop moom nag doomam moom moo ko daal sotti di essence Fallou Diop lay wuyoo am ñaar fukki at ak ñaar lu ni mel nag mu ngi xew ci guddi samedi jàpp dimanche euh, ca noota guy euh, jama euh, fële ca benn village bu nekkee ca Kéri ca région bu Thiès moom nag moom gannaaw ba mu sottee essence way juróom bu góor daal di koy taal mujjante ga nag mu daal di ñàkk bakkanam moom moo dellu siwaat ca analam moo waral rek mu daal di taal baayam daal di nay wax ci kanamu enquêteurs yi ne Euh, waajuram bu góor dafa doon euh, tuumaala euh, yaayam ne yaayam dafa bari woon ay góor yu mu doon sékkal te it bett na ko du benn du ñaar ak ay góor moom moo waral daal mu daal di koy dàq ca këram lu ni mel nag doom ja mënatu ko dégg loolee moo waral mu daal di sotti bay ja essance daal di koy taal mu mujje ñàkk bakkanam mbokk yi mu nekkoon liñ leen indiloon ci ay xibaar xibaar yi dina dikkaat suba incha allah jaa ngeen jëf. Sunugal